sama mbokk yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm vraiment awma seen fay maa ngi suma ma limee damay juum maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi ñëwoon ak ñi amoon yéene ñëw te mënuñu ñëw ak ñi yónnee ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen euh, ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm ak sutura bu yaatu vraiment sant nañ bu baax gërëm nañ bu baax vente privée bi jeex na ci jàmm commencé nañ ko ci bisimilahi rahmaani rahim jeexal nañ ko ci alhamdulilahi rabbil alamin euh, ku ñu soxla nag euh, suñu boutique mi ngi dakaar Maris ku ñu soxla nag ñu woo ci 564 21 00 wala 556 15 34 wala 739 35 71 di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di sant sama borom kër nag sama mag sama xarit Serigne Assane vraiment jàppale nañu bu baax noppal na ma parce que lii yëpp bu ne woon déet rek du am kon Mbacke Balla maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla nga yàgg fi lool te wér barke Cheikhul Khadim dañuy à part fruits secs danañ am ay fruits secs euh, dinañ ko am def ko ay plateau yooyu dina am waa à part loolu nag lu jigéen di soxla ak li góor di soxla ci sañse ak luy taaral am nañ ko am nañ ay produits yu ñuy jiwoo muy defar yaram am nañ yëre am nañ dàll am nañ même maquillage am na dafa nekk dafa am retard moo tax exposé wuñ ko ci vente bi am nañ ay bijoux en or am nañ ay brodé yu am solo autriche yu baax macha allah góor ñi am nañ fi ay jàllaabi am dàll am nañ lépp am nañ ay sac à main sac de marque am nañ ay parfum classe am nañ lépp am nañ yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne lépp mënuñu ko wax fii cuuraay yeeg parfum yeeg bagage yu baax yëpp am na macha allah lu ñu soxla rek bu ñu wootee dañuy leen ko livrer incha allah dañuy déplacé wu dañuy déplacé wu dañuy def livraison gratuite suñu ay lu bëgg suñu ay cliente la ñu ngi ci ak suñu ay client macha allah. Euh, comme soxna Kine li mu wax rek amatu bi ñu siy teg vente privée bi commencé nañ ko ci bisimilah rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp suñu mbokk yi suñu am di jàmm yi suñu wóllëre yi ñëpp wis nañu macha allah ak ñi waro na ñew am yéene ñëw te ñu ak ñi nek à distance doon coordonnées di woni di di len yëgal sante ñepp ñëpp gërëm nañ ñëpp jeex ci si té te dañuy clôturer le 31 décembre mais vente bi day continuer en ligne ko am lo bëgg lo gis ci ci bagage yi soxla ko mën nga ñu wo 77 556 15 34 wala 77 739 35 71 le 77 564 21 00 à la prochaine édition Inch'Allah merci beaucoup merci sant bye bye à la prochaine. annonce avant première ngeen am cant bëgg mu siiw màggal jàppale ni Ndiaye Pro barab bii di barabu communication di ngeen si ànd ak Xaadim Ndiaye bu ngeen amee lu ngeen di liggéeylu bu ngeen amee avisé communiqué bëgg ko jàllale bu ngeen amee publicité bu ngeen amee ngénte cant ngeen bëgg montage bu rafet boole kook filmé bu mucc ayib lépp lu ngeen def comme prestation jëm si wàllu audiovisuel contacte leen Xaadim Ndiaye borom Ndiaye Pro mi ngi si route de Belel jàkkaarloog boulangerie Gaynde Fatma woote leen gaaw si 77 325 68 20 77 325